di sunu kilifa sunu sëriñ Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi loolu tànn ak wér ak murid yëpp di ñaan li ñuy liggéeyal sëriñ bi yàlla nangu ko te moo di dabu bànneexam ak it xeeñtu mbóoram ak di ko roy euh, ba tax na nit ñu doon toppee ci ñaari fan yi weesu kuréel gi nga xam ne mooy kuréel liggéeyal ku tedd ki nam daan def at mu jot di waajal gàmm gi te tàmbali ko daaw ci ay waxtaan thème yoo xam ne jàpp nañ ne war naa amal solo way déglu yi ren ñu wéyal ko rek def ay waxtaan yoo xam ne ku toppoon ñaar yi jàll da nga xam ne mëntoon a ñàkk tey nag ñu dugg ci bunt boo xam ne li ñuy wax ne li sëriñ bi doon wax rek ne looy defal yonent bi te boole ci saxaaba yi wàcc nga ko euh, bala ñoo dugg nag ci jëmmi waxtaan wi euh, dañuy nuyu kii ñu feggool muy sëriñ Khalil Mbacke euh, jox ko kàddu gi mu nuyoo ñu door a sóobu ci waxtaan wi aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyihi alkarim sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi jiital ci sunum nuyu ak sunum siyaar maulana cheikh muhammadul muntaxa di ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér waaye di nuyu mbokki jullit yi nga xam ne ñoo ñuy topp ak fu ñu mën a nekk di leen siyaare bu baax di leen ndokkeel itam ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu nekk waaye ak bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy bisub gàmm di ñu ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel bu baax itam kuréel liggéeyal ku tedd ki nga xam ne ñooy taxawaay taxawaay yi ngir liggéeyal Serigne Touba ci amal ay waxtaan yoo xam ne day aju ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir liggéeyale ko sëriñ bi kon Cheikh Fall ñu ngi lay nuyu bu baax yow mi nga xam ne yow lañ àndal waxtaan wi di la delloo kàddu gi ah sëriñ Ibrahim ci bu am solo niñ ko waxee rek ci bi ñuy tàmbali ñu dugg ci bunt boo xam ne moom lañ fa yéenee seq ak yow waxtaan muy waxtaane ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, muy saxaaba yi waxtaane ko ci biir njàngaleem sëriñ bi ban booba murid yi xam taxawaay biñ war a am ci suñ digganteek ñoom ak wàccuwaay wi leen war a jox ak yu ne mel yi ci sëriñ bi jàngale waaye bala ñoo xuus ci waxtaan wi sëñ Ibrahima bu ma sañoon nga leeral ma rek hmm. maanaam buñ nee saxaaba ñan lañ ci jublu ba noppi ñu hmm. door a dugg ci waxtaan wi ok jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadal <coughs> ni nga ko waxee waxtaan wi mu jëm ci saxaabatul kiram radwanullahi alayhim ajmain muy waxtaan waa mu solo boo xam ne ñi ñuy waxtaane ñooy waxtaan wi am solo muy saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain eh, saxaaba yi nag mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom dafal tawféex ñu dund ak yonent bi sallallahu alayhi sallam ñooy ñi nga xamee itam ci ñoom la suñu borom jaarale yëkkati diineem ji nga xam ne mooy diine ji nga xam ne ci moom rek lañ ko mën a jaamoo jaamaguñ nangu ñooy ñi nga xam ne itam ci ñoom la yàlla defal tawféexi alxuraan di wàcc ci ñoom ñu di ko teewee waaye ñu dund ak jëmm ji nga xam ne moo gën a tedd ci lu yàlla bind ki gënal yàlla ci mboolem mbindeef yi ñu dund ak moom ñooy ñooy saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñu ñoo xam ne nag ñu am daraja lañ ci lislaam ñu am wàccuwaay lañu itam ci lislaam ñu am wàccuwaay lañu ci diine ñoo xam ne danoo jaayoon seen boroom seen alal ak seen dund ngir taxawal diine lislaam xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom daf koo tànn def ko muy gën ci mbindeef yi waaye tànnaat ko def ko muy gën ci mboolem yonente yi tànn aw xeetam itam def leen muy xeet wi gën ci mboolem xeet yi ñi nga xam ne noonu la yonent noonu la ko suñu borom tànne noonu la ko tànnale saxaaba yi nga xam ne ñu àndoon ak moom ñi nga xam ne yonent yi ko jiitoon amoon nañu ay xawaari yun ñi nga xam ne ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jamonante ak moom daje ak moom te gëm ko ñooñu la borom xam-xam yi di tudde ay saxaaba donte wuutu nañ ci ñan ñooy saxaaba yi waaye li ci gën a euh, li nga xam ne mooy jumhur li gën a wér mooy ñi nga xam ne daje na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte daje ba yàgg na yàggut toog nañ toogut góor lañ jigéen lañ mag lañ ndaw ñooñu la ñu wooye saxaaba ñoom ñëpp nag euh, ñoo am darajey saxaaba doonte ci biir saxaaba yi seeni daraja wu ute na waaye ñoom saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain daraja yi nga xam ne am nañ ko ci lislaam wala boog ñu am ko ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu yonent bi jiit jàllee ñoo ñëpp daraja ci mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñoo xam ne seen dund gépp dañ koo joxoon yàlla waaye bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko tar am ci ñoo xam ne seeni alal ak seen njaboot ñàkk nañ ko ngir yëkkati diine lislaam ak taxawal ko am na saxaabi bi muy wax Mus'ab ibnu Umayr radiyallahu anhu nga xam dafa doonoon ku bari alal waaye famille bi mu bokk itam doon bu bari alal ba xam ne yeggoon na ci jamonoom fu mu a jaar danañ xam ne moo fi jaar ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax mas naa wax ne ki gën a neex ci Makka day mooy Mus'ab ibnu Umayr ndax alal ju bari ju mu yoroon mi nga xam ne dugg na ci lislaam ay bokkam dañoo taxaw ci bëgg koo bëgg koo génn ci lislaam ba nangu alal ji mu yoroon lépp ngir ne ko boo bàyyi yonent bi sallallahu alayhi ñu dellu la ko waaye diineem ak lislaamam ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaral ko mu bàyyi alal jaag di alal jaag lépp topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne keroog bi mu faatoo ci xare Uhud mbubb mi nga xam ne moom la soloon bu ñu sàngee bopp bi tànk yi du feeñ bu ñu sàngee tànk yi bopp bi du feeñ te bokk na ñëpp alal laat muy dugg ci lislaam ñooñu mooy loolu loolu la leen diine lislaam jaraloon am na ci saxaaba bu ñuy wax urwat ibnu mas'ud as-saxafi yi nga xam ne wax na ne fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog waaye nee na yonent bi du du xaaxtandiku mukk lu may ne xaaxtandiku wa nitu ko capté raay ko ci kanamam wala mu raay ko ci aw yaramam wax ne itam ne bu masaana jàpp dañuy njëkkante jàpp ma ba xaw di ci bëgg a xeex su diglee ñu daal di gaaw dem ci njëkkante lam diglee waaye bu ñuy wax ak moom dañuy wàcce seen kaddu wàcce seen kàddu ba nga xam ne euh, nank la wax kenn daaw ko xool a sab xool ci moom waaye ku ñuy wax anas ibnu malik nee na fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku koy wat waaye nee na saxaaba yi taxaw wër ko nga xam ne genn karaw du wadd lu may daa daa rot ci loxob kenn ci ñoom am na saxaaba yi ansaar bu jigéen boo xam ne ci xareb Uhud dañoo rey boroom këram rey waajuram bu góor rey rey mbokkam mu góor ñoom ñëpp ñu faatu ci benn xare Eh, ñu waaye bi bi xare bi jeexee ba ñibbi Madinatul Munawwara dafa laaj ne ana yonente bi ndax mucc na ñu ne ko yonente bi kay mucc na waaye sa sa borom kër day faatu na ak sa baay ak sa mbokk mu ne wan leen ma yonente bi ñu wan ko ko mu daan ne mépp musiba ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu jàpp ne jàpp ne kon saxaaba yi ñooy ñi nga xam ne ñoo jaayoon seen dund ak seen alal ak seen lépp ngir taxawal diine lislaam ngir ànd ak yonente bi sa alayhi wa sallam ci ak cofeel waaye ànd ak moom ci bëgg yàlla ànd ak moom itam ci bëgg lislaam taxaw ba lislaam yegg si tey jii ci ñun bañ koy waxtaane kon mën nañoo wax ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ëpp daraja ci mboolem ñu yàlla bind ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax loolu alxuraan moo ko dëggal alxuraanul karim boo demee ngay fekk mu tagg saxaaba yi ci ay aay yu baree baree baree bari bokk na ci rek fi mu waxee muhammadun rasulullahi wallazina maahu ashiddaau alal kuffaar nga xam ne daa dëggal risaala ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye teg ci nag ne ñi àndoon ak moom day te mooy saxaaba yi ñu tar lañ ci yéefar yi waaye ñu yërëmante seen biir lañ bu ñu dayee ñi nga xam ne noonu yàlla lañ duñu ñu nekk ay naafeq dañuy wane lañ gëm wane itam ne liñ nekk ay dëgg wane ko ci fulla ak ci fayda waaye bu ñu nekkee seen biir ne ñi nga xam ne ñoo bokk luñ pas-pas ñoo bokk yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wane ak ñeewante ak yërëmante seen biir loolu itam jullit bu nekk ci doxin mu mel noonu nga war a dox a doon am naafeq ci sa nawlay jullit yi nga ñi nga xam ne da bokk ak ñoom lislaam bokk ak ñoom xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga ëmbal leen cofeel gi nga xam ne moom la yente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kenn ci yéen ak ngëmam du mat lu may lim bëggal boppam da ko bëggal moroom roy ci sahabatul kiram waaye am na ñoo xam ne tey ñu jaxasoog ñu dul ay jullit sax ñeneen ñoo xam ne duñu ay jullit mën nañ wax ci ñoom mën a wax ci ñoom lu rafet mën a jëflante ñoom jëflante bi rafet moo leen gën a jàppandi seen mbokkum jullit mi nga xam ne dañoo dëkk ak moom wala jege moom man ci wax li yàlla di tagge saxaaba yi loolu ci jikko jooju ci la bokk wax ne tagg leen itam ci ak mën a jaamu yàlla ni niñ mane ci xare ba ba bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawee takk ab xare dañuy ñaan sax ñoom far faatu ci xare ba ngir sax yi di ci bëgg waaye noonu ñuy jàmbaare ci xare ba buñ jàkkaroog seeni noonu itam noonu la ñuy jàm jàmbaare ci jaamu yàlla gi tarahum rukkaan sujjadan lépp nag yabtaxuna fadlan min allahi wa ridwan ngir sàkkoo ko ngërëmal yàlla ba àgg ci sax di wane ne seen mandarga yi jaamu yàlla ye boo jàkkaroog seen kanam yi di gis simaahum fi wujuhim min ashari sujud daane nii la leen yàlla mel la woon ci téere yi leen jiitu aayab al aaya boobu day tagg saxaaba yi di leen melal ci jikko yi nga xam ne amee nañ ko waaye da ngay fekk ci alxuraan def aaya yu baree baree bari muy wane daye bi ñu am ak ngërëm di leen yàlla ngërëm wa wasaabiquuna alawaluna min almuhaajirina wal ansaari wallazina tabaxuhum bi ihsaanin daf caa teg ne radiallahu anhum wa radu anhu ñi nga xam ne ñoo ñu jiitoon ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi leen ci fekk muy lansaare ak ñi topp ci jëf ju mel noonee ñoom ñëpp yàlla yàlla gërëm na leen waxaat ci itam ne lil fuqaraa il muhaajiriin allazina uxriju min diyarihim wa amwalihim yabtaxuna fadlan minallaahi wa ridwaanan di tàgg ne la tax ñu bàyyi seeni kër bàyyi seen alal dara warlu ko lu dul sàkk ngërëmal yàlla ñu génn leen waa Màkka génn leen seeni kër nangu seen alal ñu nangoo gàddaay dem ngir rawale ji seen diine waaye rawale ji woote yàlla bi nga xam ne mooy lislaam yabtaxuna fadlan minallaahi wa ridwaanan ak wa yansuruuna allaha wa rasulahu yàlla tagg leen ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo dëggal dëgg dëgg dëgg ulaayka humu saadixun tagg itam al ansaar ci isaar gi nga xam ne dañ koy def ci gënal loo xam ne soxla nañ ko sax ngir ko jox seen mbokkum julit bi nga xamee ne muhaajiru ne ñëw nañ madina yonente bi sallallahu alayhi dafa def la wax al ixa mbokkaleen mbokkale leen jël ab sa ab muhaajir koo xam ne mu mukarram la jóge boole ko ab ansaar daf leen ay mbokk mbokk googu lansaar yi jàpp nañ ko ba yegg nañ ci ku ci yor ñaari soxna da ngay bàyyi kenn ka jox ko jox ko muhaajir yegg nañ ci bay xaaj seen alal itam di ko jox kenn ki nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wallazina tabawu daara wal imaana min a yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yu'siruna ala anfusihim is yu bàyyi woon kon soo digloo aay yooyu yëpp ak yenn aay yi nga xam ne waxtu bi day gudd dangay gis ne ñoom ñu am daraja fa seen borom la ñu yàlla jox wàcc waaye la waaye ñu làq ngërëm li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoonte bi tam wax ne ñi gën ci mbindeef yi mooy ñi nga xam ne ñoom laa jamonanteel mooy xayrul xayrul xuruuni xarni su lazina yalunahum summa lazina yalunahum wax ne itam ne maa ngi leen di wattandikuloo ngeen moytu ngañ samay saxaaba waaye ne laa laa tasubbu ashaabi wax ne ko baaxu ñetti yoon wax ne kenn ci yéen bu jëloon bu jëloon alalam ji gën a foor parce que misaale ci wurus lu toll ne doju uxat mu def ko ci yoonu yàlla itam lu tax mu jot ci ñoom lu toll ne mudd wala wala lu ko gën a néew wax itam ne nangeen ragal yàlla ci sama saxaaba yi wax na itam bokk na ci màndargam gëm yàlla bëgg lansaar yi waaye bokk na ci màndargam naa naafeq wala màndargam kéefar bañ leen wax ne képp ku bëgg saxaaba yi itam mu ngi mi ngi ko aj bëgg gi leen bëgg mi ngi ayu ci bëgg gi nga bëgg waaye képp ku leen bañ itam bañ nga leen bañ man nga bañ waaye bañoo leen loolu itam ci daraja saxaaba yi saxaaba yi la bokk ahlu sunna wal jamaa itam mooy ñi nga xam ne ñooy asalafu saalih ñoom ñëpp ñu dëggoo ci ne saxaaba ñëpp ñu am ngëneel lañ ñëpp ñu maana lañ ñëpp ñu baax lañ xam ne kulluhum adu hudul loolu ahlu sunna wal jamaa ñoom ahlu sunna wal jamaa bu ñu waxee mooy jeexiti saxaaba yi asalafu saalih ñoom ñëpp dëppoon nañ ci ne saxaaba yi ñëpp ñu baax lañ ñu maana la ñu am ngëneel lañ donte seen i ngëneel nag mën naa mën naa rawante mën naa gënante ñoom niñ ko tartibe bu dee ahlu sunna wal jamaa ñoom dañoo wax ne ñi gën ci saxaaba yi mooy alxulafaa rasidun bu alxulafaa rasidun jàllee ñi ci gënaat mooy al asratul mubassara bil janna te al asratul mubassara mooy al xam ne ñoo jiitu Euh, juróom-benn ya ci des moom la Cheikh Abdourahman mu suñu Abdul Xudus wayoon ci wenn bay tënku ne humu shahidin wam na awfin talha saxadun subayrun wa abu hubayda nga xam ne alxasanatul mubashara ñoo jopp ci tartib bi ci dara darajaar sahaaba yi waaye boo boo jàllee ci tamit ñi ci topp mooy ahlu badar ñi nga xam ne ñoo fekkoon badar nga xam ne mooy xeex bi njëkk xeex ci lislaam saxaaba yi doonoon ñu néew jullit yéefar yi ëpp leen lool ñu wane ci jom ak ngor ak pas ba yàlla wax ne ñi teewoon badar xoolatu ci ñoom dara luñ maa def boo waa Badar jàllee waa bayxatu ridwaan moo ci topp bu waa bayxatu ridwaan jàllee mooy ñi nga xam ne ñoo doon ay saxaaba ñoo ñoo ñoo nekkoon ay julit njëkk fatxu Makka di am te moom la alxuraan di wax naan euh, laa yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qaatala bu ñëwee jàllee nag saxaaba yëpp daal ciy topp euh, noonu la kon loolu mën na nañoo tënk ci ne ñooñu ñooy saxaaba yi dara jooju lañu amee ci alxuraan ak hadis dara jooju lañu amee tam euh, jërëjëf sëriñ Ibrahima macha allah Euh, waxtaan wi euh, ubbi gi rek daanaka doy na sëkk te daanaka dëgg dëgg tem ba ne ñëwagul waaye euh, dañuy déglu doo doo bëgg sax dagg wax ji waaye temps bi moo tax dañuy dem rek directement ci ci li ñu tax a jug dëgg-dëgg mooy ginnaaw bi ñu xamee saxaaba yi ñoom ñooy ñan seen wàccuwaay ci lislaam nga xam ne ñoom ñooy sunu sunu suñuy royukaay maanaam li ñuy wax istaar noonu mhm. la leen sëñ bi di tuddee ci jës bu mhm. ba muy wax ne mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi dugg ci biir kuréel bi nga xam ne ñoo gën ci sang yi doon weer wu nekk ci biir biddiw xat xaama xayrul bashari wasta xiyaari zumari ila takaburi kal wasta anjumi kon foofu la ñu duggee directement ñoom saxaaba yooyu mhm. maanaam ban bët la leen sëñ bi doon xoole wan wàccuwaay la leen joxoon lu mhm. mu leen jàppe woon mhm. wàccuwaayu saxaaba yi ci sëriñ bi waaw wàccuwaayu saxaaba ci Seexul Xadim wàccuwaay bu rëy rëy la ndax sëriñ bi dafa indaale yitte ju kawe kawe kawe ci aw doxalinam eh, yitteem jëme ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa ak boromam mu ñëw fekk sahabatul kiram yi nga xam ne ñu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu am ci yonente bi di tawféex joo xam ne suñu borom moo leen ko bindee ndax jamononte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tawféex la ju leen yàlla defal waaye itam gëm giñ gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tawféex la ju leen suñu borom defal ndax yàlla moo wax ci alxuraan afa man saraa allahu sadrahu lil islaami fa huwa ala nuurin min rabbihi wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa innaka la tahdi ila siraat mustaqim kon jëmmi saxaabatul kiram li ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seenu njàmbaar ginnaaw bi leen yàlla wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nañ ko ci taxawaay waaye dëgg-dëgg li am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, tawfeex ju rëy rëy la sëriñ bi itam ñëw jël bëtam teg ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël saxaaba yi def leen ay nawle ngir ànd gi ànd gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne waccal rasulullahi nasba ayni mooy ñaan boromam ne ko na def yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy ki nga xam ne nga xam ne du ma xef sama yitte yëpp jëm ci moom ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi ak sëriñ bi aw doxalinam ci wàllu tërbiye ak wàllu yar mu jël ñooñu itam def leen def def saxaabatul kiraam muy seen roy waay moom ni mu jëlee yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko nga xam ne day jàpp ne bu waree am naaw la daal yonent bi dong la war a doon mooy képp mooy ki nga xam ne moom dong moo war a doon kilifaam ñu ànd ak ñoom def ci ñoom pas-pas bu ñu waree am kenn genn royukaay wala kenn koo xam ne daa leen jiitu saxaaba yi rek la war doon ñu def seen royukaay moo tax mu waxoon ne ne leen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine ci rawatina saa yi ñu mës nekk ci ay jafe-jafe gi tolof ci ja ci ci yenn natt yi nga xam ne daanañ ko teg ñu àndoon ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la mu daan wax saxaabaam ya ca bu ñu mësaan am jàmbar yi mel noonee moom la sëriñ bi daan wax ñu ànd ak moom boo ñëwee ci sëriñ bi nag da gis ne saxaaba yi wàccuwaay bi mu leen jox daf leen dugal ci biir bëgg gi nga xam ne bëgg na ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam da leen dugal ci biir bëgg googu ndax sëriñ bi dafa bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bëggaale mbooleem lu jokk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bëgg mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bëggi alquran ci la bëggi hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bëgg sax làkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci la bëgg xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bëgg juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp dafa aju ci bëgg mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay fekk muy wax naan yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xablu kunta tabibi wala muy wax naan kitaabu rabbi lii xalilun wa habib yuhibbu nii bi hubbihi kullu labib mooy bëgg ma bëgg alxuraan ci la képp ku am xel ci la ma war a bëgg di wax ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ahadis an nabii anta xalili wa habibi wa juttali bi sidaadi nga xam ne bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bëggaale wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bay wax naan kalaamuhu laa abtaxi laa abtaxi bi badala li annahu ala kitaabihi adal wala boog nawaytu wal ahmaalu bin niyaati talaasu min hadisakal kon dañuy gis ne bëgg bëgg saxaaba yi dafa dugg ci biir bëgg mu bëgg bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu boo duggee ci ay mbindam da gis ne liggéey gi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa day mel ne ku ci laafaale saxaaba saxaabatul kiram ci buy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day leen taggaale waaye buy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa day julliwaale ci ñoom waaye buy ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam da leen di leen di leen di ñaanal kon mën nañoo wax ne wàccuwaay bi bi bi bi sallallahu alayhi wa sallam am bu mel noonu la sëriñ bi fonki woon saxaaba yi waaye weg leen màggal leen digle itam ñu weg leen màggal leen bay wax ne na saxaaba yëpp maanaam di tere ku wax ci seeni seen seen i biir rawatina yi amoon ci seen diggante di war a di tere ku nett la seen diggante waaye ne saxaaba yëpp ñu wér lañ ñu nekk ci yaqin lañ ñu wóor lañ ñi ñëpp ci ittihaad lañ nekkoon ñëpp ci ak njub lañ nekkoon kon ci gàttal nañu wax ne wàccuwaay boobu la saxaaba yi am ci yoon bi ci ak gàttal Euh, jërëjëf sëriñ Ibrahima euh, buñ déggee ni nga waxee day mel ne thème bi ab junj rek lañ lañ ci mën a def. Mm. ndax lu yaatoo yaatu la loo xam ne dañoo jubloo ubbi bunt. Mm. ñu xam ne nii nga waxe léegi sëriñ bi neewoon na murid yi saxaaba yi ñu seen bàyyi ci diini. Mm. ñoom ngeen war a roy. kon ki nga war a roy faaw nga xam ko. kon buntu la boo xam ne dañ koy ubbi ngir ne mhm. joxoñ ko mhm. dañ dañ leen a war a gëstu xam seeni histoire mhm. te di leen wax ci ñoom lu rafet te maandu cay xewoon ci yëfi nit bokk na ci njàngalem sëñ bi bu ko temps bi maye woon danañ xuus bu baax ci ni leen doon tagge bay jim tawasul eh, ak ak eh, yéeg yéeg ci ci bokk ci ñoom ak yu mel noonu waaye mel na li des ci waxtu yu bëriwut dañuy dañ lay laaj rek ndax noonu sëriñ bi defoon saxaaba yi euh, màggale leen noonu de teg teg leen ci kanamu murid yi ñu di leen roy ndax loolu fi mu ne nii am na jeexit maanaam am na am na am na taasir ci ni yoonu murid di doxe waaw ni nga ko waxee mooy moo nañoo gën a xuus ci wàllu googu waaye ni nga ko waxee waxtu bi day waaj jeex euh, ci tagg gi mu leen doon tagg ni nga ko waxee ak tawassul gi nga xam ne def na ko ci ñoom ci ay ak ba ci hidaaya yi nga xam ne sax sëriñ bi jox na ko saxaaba yi ci ñu ko bindee ak yu deme noonu waaye jeexit yi nga xam ne mënees naa wax ne dunduk dunduk saxaaba yi am nañ ko ci biir dunduk yoonu murit euh, jeexit yu baree bari la ndax li ci jiitu mooy yitte ji nga xam ne maa yëkkatiwu yitte gi nga xam ne def na ko ci ñu àndoon ak sëriñ bi ba nga xam ne ñoom seen yëkk seen yitte yëkkatiku na ba koo ci tudd man ngaa tudd ci saxaaba yi kenn ñu nuroo ay jikko niroo ay melokaan waaye nuroo ay pas-pas ba yegg na ci sax ñoom saxaaba yi pas-pas yi ñu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci wekk ko ak màggal ko ak bëgg ko ci waa kër Serigne Touba ci ñu àndoon Serigne Touba rek nga ko mën a misaal nga mën a gis ci niñ ko fank woon buy buy buy dox yonent bi sallallahu alayhi wa jiitu ñu topp ci ginnaawam bu ñuy wax ak moom di ko déy su nekkee ci biti ñu nekk su nekk ci biir su diglee su diglee ñu koy njëkkante bu dee jàpp ñu koy barkeeloo loolu doo ko fekk ci kenn koo xam ne mas naa woote diine wala kenn koo xam ne mas naa jiit ay nit topp ko ku dul ci wàkkar sëriñ Touba kon jeexit gu rëy rëy def na ko ci ñi nga xam ne ñu àndanu sëriñ bi ci digal gi leen sëriñ bi digal ñu roy saxaaba yi ci aw melokaan ba mujj doon seen dund ba nga xam ne sooy jàng dunduk saxaaba yi di jàng dunduk mag ñi àndanu sëriñ bi da ngay gis ne genn dund la waaye jeexit googu itam yegg na ci euh, ci boo xoolee ci biir yoonu murit wala biir njabootuk sëriñ bi da ngay gis ne turi saxaaba yi baree baree bari dikkaan na ci biir njabootuk sëriñ bi maanaam ci biir njabootu ñi nga xam ne sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñu àndoon ak moom di nga ci fekk tur yoo xam ne néewaana nga gis ko ci feneen fu dul fii ci yoonu murit wala feneen fudul sëriñ bi ngir bëgg gu sëriñ bi bëggoon saxaaba yi ak xeetal gu mu ci xeetoon ñu àndal moo waral lool di nga fekk ci biir eh, ci sëriñ bi ci boppam muy tudde Seydina Abu Bakar muy kenn ci saxaaba yi di njëkk wutu yonte bi sallallahu alayhi wa waaye ci biir murit yi yëpp boo ko xoolee da ci fekk turu saxaaba yi bari ba ci sax saxaaba yoo xam ne ñu baree bari ci tudd gi ñu leen tudde mën naa am ci leen ñeenti xamee mooy ñi nga xam ne ñoo gën a néew lu ñu tudd ku mel ne Miqdaad ku mel ne Subayru ku mel ne Muhaas ibnu Jabal ku mel ne Ibnu Abbas ku mel ne Abu Hurayra ñi ñëpp boo xoolee am nañ ci biir njabootu waa kër bi ba ci jigéen ñi sax soxna Asiya wala soxna Xalimatu Saadiya ñooñu ñëpp ñoo nañ ci biir njabootu sëriñ Tuubaa nga xam ne ci biir njabootu sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo àndoon sëriñ bi dañ ci fekk mbooleem turi saxaaba yu bari saxaaba yooyu kon mën nañoo wax ne jeexit gi nga xam ne def na ko ci ñaar yooyu ñaar la mooy roy gi nga xam ne roy nañ ko saxaaba yi ba àgg niroog ñoom ci ay jëf wax naa ko léegi ba nga xam ne ni saxaaba yi daan dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa moom la taalib yi daan dund ak bi ci pas-pas ci ak bëgg ci ak cofeel bu jéggi dayoo goo xam ne ku ku mu ku ko ku ko musut doo ko mën a doo ko mën a xiyaas doo ko mën a nat am ku ñuy wax soxla no xayr xumayr dafa koo xam ne ab ci kufaar yi nekkoon màkka la bi mu ñëwee ci sulhul Hudaybiya di waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day gis yonent bi bu bu bu tiflee dañ koy njëkkante bu xaaxtandikoo ñu njëkkante ko lu mu def ñu njëkkante ko moom Suhayl ba mu génnee dem Màkka dafa wax ne man de dem naa ci mulku dem naa ci ci Ruum dem naa Faris dem naa fu ne waaye mosuma gis ñu toppe seenu nit ñi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetu toppin woowu nag ci yoonu mbir rek ngay fekk ñu jeexantal ko ci topp gi ñu topp Sëriñ Tuubaa tabaarakallah euh, jërëjëf euh, sëñ Ibrahima lii de moom bu mu doon fu waxtu yu yaatu xam naa ne des na dégg miir ndax sëriñ bi moom lam waxoon da caa jugut ne woon yonent bi léppam laay fonk ak màggal yu bajjulu kulli kullaka maanaam amul lenn lu muy jël ci yonent bi bàyyi la ca des du ne damay jàpp ci alxuraan kese kese kese wala damay jël saxaaba yi kese kese loolu nag dafa am solo ci murid maanaam ginnaaw ñun saxaaba yi ñooy suñu royukaay mbooleem lu sëriñ bi bëgg mhm. ñu bëgg boole lépp bëgg mhm. bañ cee tànn ni man mhm. wér du maaxus kese kese laay jàpp wala xasida yi kese laay jàpp wala man tuubaa dong wala man njaboot gi dong wala di léppi sëriñ bi noonu mooy pas-pasub taalibe ni mu doone woon ci euh, pas-pasub yonent bi saxaaba ndax roy dafa am solo gis nañ sëriñ bi lii muy liggéeyal euh, sangam ba di ci laafaale mbooleem lu mu bëggoon lépp mm, mm. da cee boole woon fu sangam ma teggi tànkam nag mm. mu teg ko fa salaatu sitta bi mataxi sitta taatihi batta waaye nag maati saay xadram maxal bi waaye nag bil iqtidaay kon loolu gis nañ mu feeñ ci sëriñ bi ba bu bu toogee di nettali nuyent bi toogoon def moox ji sa ay loxoom baaraam yi di génn ndox ñu di ñuy jàng xasida gi ci kanamam sëriñ bi ay baaraamam di génn ndox kon roy roy gi mhm. dangay mujj jël xaalub ki ngay roy mhm. loolu ni nga ko waxee def na jeexit mhm. ci yoonu murit def jeexit ci ñi àndoon ak sëriñ bi waaye loolu nag ñii ñëw seen ginnaaw kon dañ ko war a xam gëstu dunduk saxaaba yi gëstu seen pësseef gëstu seeni teggin ba xam ne lii mooy li sëriñ bi bëgg ñu doxe ko kon defe naa ni waxtaan wi euh, am na solo lool bu ñu la dee delloo kàdd gi dañ koy booleeg euh, ci kàddu gu mujj gi nga leeral ñu maanaam loo mën a tënk ci waxtaan wi yëpp tàggooto waale ko ok jërëjëf suñu fàllu leeral yooyu nga def am na solo lool ndax bu ñuy waxtaanee sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain jubluwaay bi loolu la ñoo xam ne ñoom euh, pas-pas bi nga xam ne moom lañu war a am ci moom dañu war xool pas-pas bi sëriñ bi am ci ñoom ñu am ko ci ñoom la ci jiitu nag mooy jàppaleen ñoom ñëpp ñu ay ay ay ñu mooy jàppaleen ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu maanu lañ jàppaleen itam ñoom ñëpp ñu am ngëneel jàppale itam ñoom ñëpp ñuy ay royukaay loolu pas-pas boobu sëriñ bi amoon ci ñoom ñoom saxaaba moom la ci ñëpp moom la ci ñëpp waram te sëriñ bi def koo jàngale ci biir ay mbindam eh, ci fonk gum leen fonk tagg leen ci ak njàmbaar usudun alal ahdayi masabihun fi duja wa kullun sujahun rësasil kufri yajsaw tanaasahul mawta maha wal kullu minhum sajoha yabqi laha aw yusraha li hubbi maahil xumam nga xam ne daf leen tagg ci ak njàmbaar waaye tagg leen itam ci wàllu jikko wane ne ñoom saxaaba yi day liñ daan def ci seen diggante mooy ak laabirante nga xam ne daawuñ ŋaayo daawuñ ŋaayoo waaye dañ naan laabirante ñu toll di di jëriñante te diinu an nasiha waxe itam ne fexewoon nañ ba moom seeni bakkan ba teg ko ci ndigal suñu borom seeni bakkan bañ ñene moom kon yooyu ay jikko la yoo xam ne dañ ko waree ñoom fa asbatu nusha bila shixaaxi ismalakun nufuusa bistirqaaxi wax ne itam ne dañ daan jël seen alal di ko sànk ci yoon yàlla di joxe ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajal na xare bu ñuy wax Tabuk wax ne nag ku nekk indi li mu yor ñu waajal ko xare bi booba Seydina Seydina Abubakar joxe alalam jëpp Seydina Omar ñëw joxe génn wàllu alalam saxaaba yi ku ci nekk ñëw joxe li nga jox mu ne saxaaba yi seen alal dañ ko jël di ko sànk ci yoonu yàlla waaye daawuñ ko def nag ci ak ngistal daawuñ ko def itam ci ak naafeq wax ne itam ne ñoom dañoo bàyyi woon ak seen bopp yàlla dëgërloo yàlla wakiilu ci moom ci mboolem seen wërsëg nga xam ne lii seen yitte mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii seen yitte rek mooy taxawal lislaam waaye seen wërsëg ak seen seen seen mbirum àddina dañ koo bàyyi woon seen borom wakkilu ci moom wax na itam ñoo xam ne dañoo bàyyi woon dañoo dañoo dañoo waroon ginnaaw àddina dëgmal alaaxira nga xam ne alaaxira dañoo dëgmaloon alaaxira bàyyi àddina fase àddina jublu alaaxira seen yitte yëpp jëmale ko ci yiwu leen tax a jub ëllëg ba tax na buñ masaana jëm ci ab xare da ngay yi boo xam ne bu demee ci ab xare xare ba jeex ta faatu ja day naqar lu ñàkk gi ci ñàkk faatu ndax xamut ba xam benn xare dina ko fekkaat ba mu am darajee shahid wala amu ko am na saxaaba bu ñuy wax Abdullah ibn Rawha ci xare bu Mu'tata nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon euh, drapeau bi Jaxfar wala boog Abdullah ibn euh, Haris Sayd ibn Haris la joxoon drapeau bi ne bu Sayd daana na ko jox Jaxfar bu Jaxfar daana na ko jox Abdullah ibn Rawha waaye Abdullah ibn Rawha ba mu demee ba des ca day mel ne kuy yedd boppam di di wax ak bakkanam naan ko gis naa la ngay sib dee gi nga jëm waaye mu neex la ak mu naqarale di nga ci jëm nga xam ne ñoom noonu lañ noonu lañ doon songe ak dee ngir wan guñ ginaaw wan ginaaw adduna sëriñ bi dama wax ne saxaaba yi daawuñ bàyyi ndigalul suñu borom ngir tiitaange ju leen seen noonu tiital wala ñàkk gu leen dab wala yittee foo wala mën a fekk ak lu jamono naqar ndax ak lu ñu tiit tiit ndigalul suñu borom la ñaan jiital ci lépp ba buñ nekkaan cib xare sax seen seen seen seen euh, lépp loo xamante suñu borom digal leen ko ci julleeg yu demoon loolu mooy indi salaatal xaw fi digal suñu borom tiitaangeeg ñàkk daawa nañ ko tee def loolu itam yooyu ay jikko la yoo xam ne bi lim na ko mu yuñ mën a royee ñoom wane itam seen njàmbaar ci lañ leerale mbooleem gox yi lëndëmoon ci ak kéefër ci seenu njàmbaar lañ ko leerale mos ñoo am yitte yi àdduna wala mos ñoo am yitte yi di jaay ak jënd li leen gën a yitteel daal mooy mooy lislaam kon liñ mën a jàng ci dundu saxaaba yi ci rawatina ñi nga xam ne ñooy wuyoo sëriñ Tuubaa mooy jël saxaaba yi teg leen fu kawe kawe may jàpp leen ne ñooy ñi nga xam ne ñoo gën ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàllee waaye jàpp leen ne ñëpp itam ñu làq ay ngëneel lañ waaye bañ a wax ci kenn ci ñoom rawatina yi nga xam ne moo jotoon a xew ci ci ci ci seen diggante nga ci may jaar loolu sëriñ bi da ko indi ci boo demee ci Faydul Ghaniyil Mughni ba muy sara sanaxu risaal ci njëlbeen nga dafa indi yooyu yëpp wane ne wala imsaaku amma sajara dafa nekk loo dafa bokk ci li war ñu jàpp li xewoon seen diggante yitte ji nga xam ne nag moom la ab taalibe war a am ngir roye ko saxaaba ya mooy am pas-pas bu dëggu am pas-pas bu dëggu ci wut yàlla ndax saxaaba yi boo xoolee ni ñu doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg tasawuf lañ doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci saxaaba yi boo xam dafa ñëw ci yonent bi ne ko mënumaa toog sama kër te gisuma la maanaam su ma toogee sama kër bëgg gi ma la bëgg yegg na ci maanaam faaw damay ñëw gis la ba nga gis ma ma te man xam naa ni daraja ji la yàlla jox bu ma faatoo même bu fekkee ne yàlla dugal na ma àjjana itam xam naa duñ bokk fu ñu nekk ndax mënumaa yegg sa daraja rawatina nag bu fekkee déwu ma àjjana ci la ko yonente bi waxoon ne ko al mar'u ma'a man ahabba ne ko ci la euh, nit ku nekk kam bëgg moom lay nekkal ci la Anas ibnu Maalik waxoon ne man day bëgg naa Sayyidina Abu Bakar kon xam naa ne ëllëg maa moom ñooy bokk fu ñu nekk kon pas-pas li li li taalibe yi war a njëkk a jàng ci yi mooy jéem leen a xam te bañ leen a ginnaawal bañ leen a jàppe ñoo xam ne dañu fee nekkoon rek maanaam am na ci ñoo xam ne joxuñ benn daraja wala benn yitte saxaaba yi te saxaaba ñu am daraja leen ñoo xam ne seen daraja kenn mënu koo rab kon li ci jiitu mooy màggal leen ci sa maam yëkkati leen xam ne ñu yëkkati ñu gën ci ñu ñu am daraja yu kawe kawe yoo xam ne nit mënatu ca àgg ñoo ngi nii ñaare bi itam fas yéene nag am pas-pas bi wax léegi ci mooy pas-pas bu dëggu ci wut yàlla waaye pas-pas bu dëggu itam ci seen ci seen diine nga xam ne sa diine daf lay jaral lépp ba àgg ci sax jaral la sa sa sa waajur yi nga xam ne ñoo jur ci buñ bëggee dox sa diggante ak sa diine passeport boobu boobu boobu sëriñ bi amoon ñoom te joxoñoon mag ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ngir ñu am passeport bu mel noonu ci saxaaba yi loolu ku nekk gis na ne mag ñi àndoon ak sëriñ Tuubaa amoon nañ ci passeport boobu ndax am na ci ñoo xam ne yeggoon nañ ci euh, maanaam euh, ci ci ci ci xew-xew yi amoon bawal ci buur wolof yi fi nekkoon am na ci lenn njabootu sëriñ bi koo xam ne yeggoon nañ ci di leen tiital ci ray leen ngir ñu bàyyi sëriñ bi Euh, waaye seen pas-pas ci sëriñ bi ak seen pas-pas ci wut yàlla ndax boobu toppuñu woon sëriñ bi ngir àdduna ndax xamuñu woon sax àdduna ngi ci a woyof mooy joxe sa bakkan a waxtaan bu ñuy waxtaan yi mel yi nga xam ne waxtaan wuñ ko ngir fat ngir yëkkati daraje saxaaba ndax seen daraje yëkkati ko na ba waxtaan wi ko itam ngir fàttali leen ndax daraje ji ñu am ci alxuraan ku yàlla tagg ci alxuraan say maanaam mënatoo deltu ginnaaw ci la yàlla tagge maanaam bu yàlla taggee ci jikko ci jikko jooju day gën a jëm kanam waaye mënatoo deltu ginnaaw nit nga xam ne bu yàlla euh, ŋàññee kenn ci alxuraan kooku day mën a gën a deltu ginnaaw ci loolu waaye mënatu def lu gën a rafet loolu loolu li koy firndeel mooy bi yàlla waxee ci alxuraan tabbat yada abi lahabin boobu abu lahab mi ngi dund bu mm-hmm. abu lahab tuuboon dugg ci lislaam day mel ne day day wedd alxuraan day day wedd alxuraan moo tax saxaaba yi yàlla tagg na leen ci alxuraan wax leen ay ngërëm yi ñu làq kon ñoom yëkkati seen dara seen daraja yëkkati ko na ci yàlla ba noppi kon roy leen ak fonk leen ak weg leen ak xam seen daraja ak yëkkati leen ak boole leen ci boole leen ci sa bopp mooy jurit bu nekk daa war a boole saxaaba yi ci boppam maanaam bañ a yem rek ci ci ci di leen dégg wala di leen tudd waaye jox leen yitte yitte bëgg leen jéem leen a bëgg am yéene sax na man su ma amee doom danaa ko tudde saxaaba maanaam maanaam di di jàng siiratu yonte bi sallallahu alayhi wa di xool saxaaba yi leen leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaraloon leen lislaam jaral liñ daj ngir lislaam taxaw ak coono yi nga xam ne def nañ ko ngir ëmbal leen ak cofeel mooy ngir donte danga leen di bëgg-bëgg lu ba yàlla bëgg leen sax loolu jullit bi nekk da ko war a jéem a def ni nga xam ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa defee teel a joxoñ mag ñi àndoon saxaaba yi ngir fàttali leen ko ba jeexit jii ma wax tudd léegi nga xam ne lu néew laa ci tudd ci mboolem saxaaba yi jeexit yi ñu am ci njabootu Sëriñ Tuubaa ba ci am na sëriñ boo xam ne dafa am dafa am dafa am euh, ak njaboot ñëw wax ko sëriñ bi sëriñ bi ne ko tuddee ko Halimatu Saadiya ndax moom de ñëw na ci man ne ma sa waakar yi amaguma ci aw turandoo mel na loolu ñu àndoon ak sëriñ bi dañ koo dégg ba tax ñu ci baree bare tudd nañ ci saxaaba yi ak ay njaboot ni ma ko lima léegi sëriñ bi tam wax na jëmmi saxaaba yi ci boppam daan nañ ñëw di ko siyaare inna lazina jaahadu li musriki musaarikina kullu abin musriki li yanawaarin kulluhum yaxbatani wa kulluhum saairun li watani mooy ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jihaad ak moom di jihaad ak noon ñëpp fekk ma ci sama dëkk ñëw di ma siyaare nga boole ci nag ànd gi nga xam ne moom la ahlu badar ànd ak moom te mu wax ko ne diirub li mu nekk ci tukki bi yàlla nga boole ak ahlu badar ba moom sëriñ bi ci boppam daan ñaan ngir bokk ci saxaaba yi am na wax na ko ci bayit yu bare bare ñaan suñu borom boole ko moom mujj wax ne yàlla limaali na ma ci saxaaba yi mujj wax ne yàlla limaali na ma ci waa ahlu badar mujj wax ne yàlla booy na ma ci jundullahil xaalibina te mooy euh, ñi nga malaaka yi nga xam ne ñoo teewoon badar ak jundullahil xaalibina ñu nekk suñu borom euh, mujj wax itam ne moom sëriñ bi suñ yoon dafa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax benn xadis boo xam ne képp ku yàlla bind yàlla dafa laa bindal ñaari kër kërug àjjana ak kërug safaan ba boo boo boo bu demee àjjana ñu ñu ñu mabbu safaraam bu demee safaan ba ñu mabbu kërug safaraam sëriñ bi itam daf yitteem di toroxlu ci boromam di ko ñaan kër yooyee ba mu wax ne suñu borom may na ko mu ne inni jaxaltu hidaayatan li sahab daal ko def addi sahaaba yi nga xam ne kon maanaam fi mu leen teg moom sëriñ bi fu kawe kawe la fu rëy la foo xam ne ñii fonk saxaaba ñi ci war a jiitu mooy ñuy tuddoo Serigne Touba ndax sëriñ bi daf leen boole ci boppam maanaam dafa jël saxaaba yi boole leen ci ak dundam mm-hmm. jaxasi ci ay ci ay doxinam gi mi tag yonent bi sax da ko salaatu sitta madihi sitta bi def saxaaba yi ñu ngi ci biir sayidina muhammadin wa ali wa sahbi fi lxaawa malik kenn xamul ñu ñaat ñaata la te fu mu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana tudd saxaaba yi naka noonu fu mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sax ne kii tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boolewu ci saxaaba yi nga xam ne aw taggam des na aw taggam tagga wu wu juumu la wu juunu la ndax ngir tagg mat dangay ngay tagg ña nga xam ne ñu àndoon ak moom ndax ñoom la ko yàlla booyloon ngir ngir ngir lislaam maa taxaw ayaa xaadimal muxtaar yi laatan sa saxaabahu fa may yan sahum fal madduhu madduhun muxattam ca góor a waay <laughs> moom de booy déglu sax doo bëgg eh, mu dagg waaye lu ama am solo nga nga indi ci ci mujj gi muy sëriñ bi dafa wane ne moom ni mu doon toppee yonent bi ni mu doon junj léegi ah lépp lu laal ci yonent bi da am lu mu ci topp ba am ci la mu gis nga ni mu def ci alxuraan mm-hmm. ba li mu wax ne alxuraan ak ko may lépp mm-hmm. noonu la def ci saxaaba yi ba bari yu mu wax yoo xam ne nee na ni mu def saxaaba yi mm-hmm. moo tax mu am ko mm-hmm. lu mel ne bokk gi mu bokk ci ahlu badri nii mm-hmm. eh, ni mu def saxaaba yi def ko yonent bi def ko gàmm ci la ko yàlla yëkkatee nag boole ko ci boole ko ci ci ci saxaaba yi addani allahu min ahli badri bi xayri makrin rafian li qadri waaye addani allahu min ahli badrin wasaanani bihim an ahli alxadri addani allahu min ahli badri alayhim ridwaanu mooli xadri addani allahu yëpp mhm. yi nga xam ne min ahli badri la la ci teg mhm. ay wane ne moom lam toppoon ngir wuti ko ci saxaaba yi am na ko mhm. lam toppoon ngir wuti ko ci alquran fa mu ko teg am na ko lim toppoon ngir wut ko te jaar ko ci mawlidu nabi maanaam lépp yónnante bi daal la la bëggoon kon murid yi foofu foofu rek lañu ñu war a nekk def seen royukaay am na solo lool bu temps bi gënoon a yaatu dana gën a am solo waaye nag lii euh, tàmbali la boo xam ne defe naa dana ubbi yeneen bunt te it njariñ li dana dana bari euh, sant nañ bu baax ci euh, kii bi bu ko defee nga tàggatoo tàggatoo mbokk yi ok jërëjëf kon noo leen di sant bu baax di sant kuréel liggéeyal ku tedd gi ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy amal rawatina ci xew-xew yi di màggal ak gàmm ak mboolem xew-xew yi diine yi muy kuréel boo xam ne day liggéeyal sëriñ bi ci fànn yëpp waaye rawatina ci fànn xam-xam ndax fànnu xam-xam day fànn gi nga xam ne dafa ñoroon sëriñ bi lool ndax sëriñ bi ci boppam dafa wax ne métatu métatam wala nga jihaatam da koo teg ci xam-xam ak ragal yàlla kon liggéey gi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàllu xam-xam ci tisaare xam-xam wala ci wane borom xam-xam yi wala ci sargal borom xam-xam yi wala ci njukkal borom xam-xam yi liggéey bu màgg-màgg la boo xam ne day mel ne fi ñu féete mooy sëriñ bi dañ ci féete ndox mooy li nga xam ne sëriñ bi moo ko yorloon boppam waaye mooy li nga xam itam sëriñ bi ñi ko doyoon ci wàllu googu bariwutoon kon bu ñëwee féete ko ci wàllu xam-xam day liggéey bu sell bu rëy boo xam ne yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ bi waaye di liggéey bu yaatoo yaatu nag boo xam ne mën naa mën naa mën naa mën naa gën a yaatu ci jamono ju nekk maa mën naa bañ a nekk sax liggéey boo xam ne yem rek ci ay xew-xew hmm. waaye jamono ju nekk ngir tasukaayu xibaar yi ak yaatal jàpp ni na wala yaatu na jamono ju nekk ñuy wane njàngaleem Serigne Touba ci biir am mbindam ci lépp loo xam ne mën naa jëriñ nit ki ci ci ak dundam àdduna ak alaaxira ci lu ko koy yéwénal loolu jàpp na jàpp na ndax sëriñ bi li mu bind lépp a ngi ci luy defar dundub nit ki àdduna ak alaaxira mi ngi ci maa ci ci ci dunduk saahir ak dunduk baatin ci biir njàngalem Serigne Touba loolu nag bokk na ci kuréel bii li mu war a baye waaram mooy feeñal njàngalem Serigne Touba waaye génne mbindum sëriñ bi itam nan la ci man a jariñoo ak xam-xam yi ci nekk yi mu làmboo ñu génne ko loolu liggéey kuréel gi la ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf ñi ñu doon topp di jërëjëfal tamit waa muxaddamatul xidma yi nga xam ne ñoom lañ. lool ci waxtaan yu am solo yi rawatina GMT TV euh, ngeen man di ko fa topp waxtaan yépp te yépp am solo euh, xëy na bii mën na maa wax ne boo toogee dend dend ak kii wax muy wax ngay dégg bokkut ak boo toogee euh, ci ginnaaw écran rek di déglu ndax dangay danga da ne kii li muy wax boo taqaloog moom rek dangay xam ne kii li muy wax da koo dund lii yàlla doon seereel saxaaba yi euh, ba mu leen di gërëm naan seen jaayante goog yi man yàlla xam naa ne la ñuy wax moo nekk seen biir xol laxad radiyallahu anil muminina is yubayi'unaka taxta shajara fa alima ma fi qulubihim ci wàllu ngëm ak ak ak ak yu mel noonu hmm. loolu day day day am solo lool ndax nit ki li muy dund mu koy génne hmm. day def jeexit ci ñi koy ñi koy déglu euh, sëñ Ibrahima sant nañ la bu baax euh, sant it euh, membre kuréel liggéeyal ku tedd gi yëpp ci pësteef bi ñu wane ci liggéeyam sëñ Tuubaa bi amul nopp lu benn yoon saa yu ñu leen woowee ñu jóg waaye léeg-léeg duñu xaar sax ku leen woo fu ñu toll ñi ngi xalaat nan la ñuy def ba liggéeyal sëriñ bi ñuy tëje nag di barkeelu ci bayit wi sëriñ bi waxoon saxaaba yi rek mm-hmm. asahba rasulillahi inni xadimahu muhibban lakum fillahi mu yàq la yaakaar naa léegi murid yépp nag buñ dégloo sa waxtaan wi dana jéem a nekk foofu mm. jërë ngeen jëf ci teewlu bi mm. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu